le 14 octobre 2015 yi ñu génn doon na date bu lëndëm bu ñaaw ci démocratie sénégalaise ndaxte maa bu kenn mësul gis fenn moo am ci bureau bi nga xam ni mooy bureau assemblée nationale te biñ koy jël doon na bureau bi nga xam ni matul sax ci ndigalu président Moustapha Niass jot ay ndigal ci président Macky Sall décision boobu nga xam ni bett na képp kuy démocrate nga xam ni day tere opposition parlementaire bi am groupe doon na lu njëkk ci biir Sénégal doon na également lu doy waar pour avenir du Sénégal après réforme yi nga xam ni moom lañu ñu jël ci biir assemblée nationale jël ko ci règlement intérieur bu assemblée nationale te ñu adopté ko ci mois de juin 2015 par benn majorité bi nga xam ni dañu nekk fii rek pour exécuter bi nga xam ni moom le président Macky Sall wax régime bi nga xam ni régime bu sénégal yi doyal la fi mu toll nii wane na ni président Macky Sall du démocrate et que li nga xam ni moom la bëgg mooy fexe ba opposition bi du ñu daje. pour taxawal démocratie bu wér bu am doole fii ci biir Sénégal débat wu groupe parlementaire ku war déposer liste ak ku warul déposer liste du débat assemblée nationale ci àddina bi yépp parti politique yi ak coalition yi ñoom ñooy présenté seen liste ci biir assemblée bi bu ko defee ñu mën a am seen groupe parlementaire mais ak régime bi gis nañu lépp gis nañ fi ay député yi nga xam ni perdre nañu seen ay immunité ñett at a nii ay député yi nga xam ni également wax nañ leen ñu doo leen fi génn ak ay autorité te amul fenn fu teg ci wàllub yoon gis nañ fi ay cas de corruption gis nañ fi également ay chantage ak di xoqatal nit ñi pour que ñu bañ a nekk ci biir opposition bi malgré li sénégalais yi di naqaru loolu comme amatuñu nag arme yu jaar yoon yi nga xam ni mooy arme yu légal pour tas opposition bi ci biir parlement bi pouvoir bi tey dafay utiliser yeneen méthode yi nga xam ni dictature la wane doole la ndaxte état amul lenn lu muy def ci groupe bi nga xam ni ñoo koy taxawal ci biir opposition bi te groupe boobu dajale conditions légales yu war yëpp mais li nga xam ni mën nañ ko wax le président Macky Sall ak ñu ànd ak moom mooy opposition sénégalais bi du wane benn yoon faiblesse et dellu benn yoon ci li nga xam ni moo wax muy défendre li nga xam ni jot nañ ko fi am ci démocratie ak défendre lépp li nga xam ni moom la peuple bi bëgg te mu doon peuple bi nga xam ni tey war nan ko nax nan ko et installé na leen ci ndóol bu doy waar ñoo ngi jël témoin peuple sénégalais yépp ñi nekk ci biir réew ak ci bitim réew di leen xamal ni sunu bëgg-bëgg sunu yéene mooy xeex pour que l'état de droit mën a dellu soit ci biir Sénégal pour que suñu groupe parlementaire bii ñu taxawal groupe libéraux et démocrates nga xam ni parti yu mag yi ñu tudd léegi muy PDS di UCS di AJ PADS di mi di fsd gi ak di bokk gis-gis groupe parlementaire boobu ñu taxawal mu mën mu mën a exister ci biir assemblée nationale te tant que Maatay bii réparé wuñ ko daanu taxaw pour que benn séance bañ am ci biir assemblée nationale bi et daanu mener ay action ci terrain bi pour fësal lool Macky Sall yegsi na ci pouvoir bi par démocratie daan ko obligé mu gouverner par démocratie nangu opposition ci biir Sénégal bi et dina dem par également li nga xam ni moom la Sénégal yi bëgg par la démocratie